kon dañoo bokk yoo xam ne ñu ngi ko tëddee dund bu ndëkkaloo andee ko bokk bi yëngu ñu ngi ko tëddee tëdd bi nga xam ne loolu la bokk ñu ngi ko tëddee

Jadi ulama kan menolak pada waktu pendapat Tuhan yang mengalami dan yang lain juga kita sebut merasa saya besar saya ini bentuk mata bahkan penutup Tuhan إنا جعلنا من على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فكان يقول لك يلا dañ koy bàyyi xel ba xam ñu ñu def ak ba xam ndax dana góorgóorlu boo ko defee rek na mu ko bëgg ci ëllëg mu amal am sa victoire am ko def ci jannata ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين yàlla nag bu mu fàttee wàcc ni ci kaw suuf bàyyil ak suñu xel rek waaye dafa yabal ñu ñu ñu ñoo xam ne ñoo ñu bokk na ñu tegleen ci seen xam ak nekk leen ci ñoo ñu leen yàlla leen ko ñu ko nit ñi nag mooy ko ko jëm mooy muhammadu sallallahu alayhi wa sallam man nga xam ne moo wax ne man mar ñu yàlla leen nit dama mel ni waaju ko def am kaa rafetal ko dama mel na mu war a mel day bëgg àdduna ma yemale ko nit ñu mel mu tax mu rafet ni li ko ñu yeggale ko ñoo ne man nag maa ko yëgg te ana labina ko te ana xaati bi nag yi bi ñu ñëwee moo andi ma ñu gëm yàlla ma ñu wéetal yàlla ma ngi jaamu yàlla dong dañ ko boole dara waaye nañu ko boole nag di ko yëg di ko yàggal تبين لنا الإسلام بالوحدة مثال كان يلا أتانا بين بكل شيء بكل يوم مدة تحكم الصلوات ومن بنت مثال ومن كان مثال غير مثال من مثال دقة دقة مثال شيطان في موضوع ممكن يعني مثال para caminhar, para ser número, para ir, para estar, para a para cá, para dar um para bastante tadi yang menyalakan sifatnya. Di mana yang menyebabkan salat dina itu selam, benar-benar yang menyebabkan menyebabkan menyebabkan Jabatan dina sahaja kerana anda hukum kebalan. Jadi ia kalau benar, nama mana? Tetapi dia kalau ini tidak melihat itu. Bangkit pun jauh lebih menimbang mereka semua. Jadi jadi lebih bila ibadah alam yeesal na diine ci tasaare xam-xam bu ci ko ci jëfe ndigal ak eh, daan def defin xam ne amul ko ndend na ko ci santaane liggéey ma ngay dang dang ma ngay kër kër ngir mbëgg li ñu sàmm ak diine waaye yeesal na diine tam ci xidma talibi di bakku yu xet ba am foofu day jàpp ne moom ak njabootam ak alalam li jumtukaay la boo xam ne liggéey yàlla rek moo ko wax ñu yokkal ñu diine bi jëlee ci masaaru ñu axlaat ñu yar ak tegg yi yokkale ko ci nangu am kilifa pour que kilifa nga def foofu ak turam ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba ñu yokkal diine bi nag Abu ثلاثمته والبكرين الكورة إذا ما نتيجته فإلى أبو واحد بارك الله فيه ما يوصل كنا بني بني سنت بكري سنت تسعة من معمول تسعة من يوم جت بني بيت من يوم وهذا ما قصد وعبادة الله وخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني على الدنيا الذي المصطفى عليه الصلاة والسلام بني سنت بكري وسوف نجعل القرآن من الباب بنجاح السجن للقرآن نجعل الخمسمين بنجاح السنن ويلحق عينين بنجاح السنن والحكم جاري عن السجون والكف والباطل في الدهون مدح مدحر نك مولو مو خمنا ورنا لين سنجا دفر لين في الدين دفر لين في السكن دفر لين في النين mooy nag bi nga xam ne da ngeen defar bi ngeen defaree nag ñoom ñoo tasaare ci biir réew mi ci la ñuy sant ko tasaare sa njàngaleem tasaare sa yeesa gi mu yeesa diine moo tax Sénégal mel nii mu mel alhamdulilah rabbil alamin léegi nag Tuubaa googu ndoxum daf koy tàbbi Tuubaa ndoxum daf koy tàbbi ndoxum nag tàbbi ci barab bu sell du gànna بالنسبة لك المدينة عليه الصلاة والسلام أي منافق من المدينة بالنسبة من ما تفيدون من المدينة بالنسبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم كم مدينة من الأعراب بكل من في جبهه amoon na ay benn benn yu def naka si dul noonu am na ku dafa def naka si dul noonu da koo génne ko fokkal sama bàyyi mu dem gëlëm jaaxle ko damay bind kaamil tuubal ko ndax si dëgg ay Quran mu bind kaamil tuub mu nangu tuuba ba ne ko tuurub yàlla ko delloo waaye fokkal sama baalam du ma du

Allah akan berkata. Kami berkata, dah tentu berkata. Nak mahu mahu rasa saya lebih yang dia. Mahu lupa berkata. Kami mahu lupa berkata. Bukan contohnya. Niat bahasa asal. Dan berkata ini. Bukan. Dibuat. Dibuat orang yang berkata. Dibuat orang yang berkata. Dibuat orang yang berkata kami kembali ke saja kami amin ambak kami amin ini kukai ini kita pam kau juga kami boleh bawa bawa ini bagi ini bagi orang lain ini bagi hati campur kita ini jadi betul ini lalu kami berikan lalu berikan kepada kami kepada kami kepada kami kepada kami one for million dollars, which was, which was, which was, which was human, for a one dollar. The second one is something else. Wahai, lebih dipilih berarti akan tu, jauh tu, akan tu, akan tu, tuju, akses, anak tu, Dubai, berapa berbiji, tak berbiji, agak ko dem ko ko am ni ba ko ba ni ko jini ko jaay ngorom ni ni ko ndako am ko euh mo ko am do ko jaay ak ko ko ko re halal mbolo ni ko ko lay ko ko ko ni ma le ak ko ko ba ko tay ko ni ma ba ko ko ni ko ta ko ni ni ni ko ko war na ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko la ikraha fi diin qad tabayyana al-hukmu min al-ghayb waaye bu ñu bëggee nag fokk war moo tax sëriñ bi mës a nangoo jëfandikoo ngam daana wax naan buntu fetal lu mu la may lu mu la may buntu fetal moo la koy xale moo tax bàyyi jëfandikoo ngam ba amee kenn taalibam yi muy sëriñ Cheikh muy sëriñ Samb te ku nekk na ko biir ci noonu yëngu ci yow dafa xal bi moo la ko def nee na jébbal na la boppam àdduna ak àllaaxira sëñ bi dafa tudd yàlla sant yàlla daal ne almaami ma da jafe day damay jógee Saalum bi ñëw fii ba tax mu daane sëñ bi lii rek la bëggoon mooy laa ilaha illallah gis ci ma ne am naa ko te jëriñu fi ma ko kon ñëpp ko bëgg ci taal bal ñëpp ko bëgg ci jëfandikoo ngànnam kon bu ñu gën a taal ci bi di fekk ay bal ci lu dul aar war na bu defaree noonu la kon pasar bu ñuy pasar na ay diggante dagg na ak bokk wàññi na pas-pasu leen na bi ndax soo génnee ci dëkk bi ak dëkk bi dem ci jabar ولكن نبي يوم من جد رده بما يجد تحمي تحكي جد كل شيء لا حمنا ويطعم جميل على الأرض رحمة وعد ورحمة مولود لنا وبدت بلغة رحمة عنا تبقى الله أم حدث وحنا والله ما الفقر أخفى عليكم ولكن أخفى أن تفقى أن أن تفقى عليكم الدنيا فتماتتوها كما تماتتوها Kata Hulukah itu macam masalah dekat sini. Yang kedua mana? Wakna Tiala ni. Mungkin nak hidup dengan cara Kita ini. Lalu kita oleh ini. Mungkin anak di nebang rehat. Kita kesehatan. Kalau kita tahu. Mana tu pun mungkin juga. Mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana

Dia kata saya alif. Mana yang mana kami alif? Cuma am. Saya am yang kami alif. Ini kata am. Ini kata kita hati ya Rabbi. Waktu saya kini. Ini am ya ya. Itu am ya ya. Am alif. Ya saya. Kita lima bandai. Dan cuma ini dengan ini kita kawasan. Bila ada ini. Kita ini di Allah. Am ini di Dia Di Allah. Di Allah. وقل حسبي ربي والتقيت به ولا اقتراب غير العلم والدين من من بما يعطى كل جاهل بما كل اليه تبنى بما جاهل لنا به بما يعطى كل جاهل بما كل اليه تبنى بما جاهل لنا به الله يرفع الله يرفع ولست أجيب ولا أخشى سوى منزلي لأنه ظل يغنيني ويجيني بما حكم الله بك تعالى الكون كل ذلك كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عزيز المرء يكون تملكت اللقي على لحظة لله ظل يدي والقلب مع بدني ما يتحدثني ملاحا لدم الأنفس dan hidupan bangsa kembali ini. Tuhan yang Tom Rangkon Daniel, Tuhan Rasa Ketiga Daniel di Kodam. Tuhan Rasa yang Tom Kemah Hingga Sekolah Kini, Allah Akbar. Mereka Anni La Anni Bili Ahad, Tuhan Rasa Karmadan Wadawiyah, Mereka Asyidur Tuhan Yang Nasam Tuhan, Tuhan Rasa Nami, Tuhan Rabbi Unha Atau Tuhan Yang وإن منعت وفرغا وقدرا كما كانت في أدنى حاول بس بفي أدنى لكن ما يكاد إلى اللجوء إلى الفضل نحكي اللجوء من العالم وأي اللجوء أتفضل ما يفات اللي بسمع عندنا حمل إذا كنت أدنى بك أدنى فالسلطة على من منعت بوجود أدنى te bu génnee àdduna nag moo war a sonn inna haada aduwwun laka wa li zawjika falaa yuxrijannakumaa mina al-jannati fatashqaa dañu ne ko àdduna di lekk la gën a baax di naan la gën a baax di sol la gën a baax di fa gën a baax te du ko sonn parce que ci kaw suuf nag bala ngaa lekk sonn bala ngaa naan sonn bala ngaa dëkk sonn bala ngaa sol sonn أن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وأنك لا تظلم فيها ولا ترحم فوسوس إليه الشيطان فالشيطان من من كما بنقول لك بسيطون yow li seen tëjee xam nga ne du la man ma ne ba mu bàyyi fa mu daloon yow mi amagul amagul ab dal du la bàyyi moo tax Cheikh Ibrahima Fall daana wax naan dubu da mutu sai ta da bayan dan ko ko ko ko ko mun da bayan dan ko yan kan ki abdan kan da kan kan ko ko mai abdan kan na ga kan an ko ko hawo dubu da ko dubu mun kan to dun dubu ne na ga an da kun biya man ne ne abdiya kullu mu'min wa jannatu fa'ala adina man kafir dubu dan adina yusuf ñu leen ko déggee ñu ne ko àddina yi mooy taxut jullit mooy àddina yi sax mais loolu day day gàtt lool daal na jullit àjjanaay këram te àjjanaay sa kër ñu ne ko ko comptable ko kawaraay këram bi këram lu ko lu ko comptable leen waaye jullit kaso ba mu nekk du ñu jàpp ne ñu boobaa ko fi indi ñu bañ a toog ñu bañ a toog di xool waaye ak toog ko fi indi moo di benn tool boroomam ma ko fa indi ak moroomam man fa nekk bu ko defee bu ak akkan jeexee ñu bàyyi bu ko nekkee bu tool fa indi wala bu ko bu ak bu gën a xawee booba daal na loolu tubaab yi fa am na te ku nekk ci àdduna da nga ba nekk te xel bu jeexee mu bala la ñu ci àjjana da nga xam fa nga bàyyi ko yow mbokk yi keroog àjjana pour kilifa bu mag bi wala ko yàgg ko wër yëkkati na kàddoom ba mu waxee nag dënn yu bari dañoo jóg xel yu bari dañoo dañoo tool ñu bari dañoo daan te loolu lu baax la ndax murid day daan loolu la baaxoo waaye daan rek rek rek rek day ndax ku ne woon damaa bëgg ngeen dem barab sàngam goral ma ko jënd ko ko du tax mu am la mu bëgg daanu rek def la mu lekk du tax mu am la mu bëgg kon nag bu ñu daanoo ba tiis nag nañu ko defal la mu bëgg li mu bëgg nag day laaj ay taxawaay yu leer nañ liggéey bi wér tëñ ak nekk bi jub fekk mooy tax mu am li mu bëgg nañ ko bëgg kon li mu bañ ci dëkk bi nekk ñu koy jóg bañ la ko ko ci taxaw ak nag ak laxasaay te kat bu ñu bañ ko dëkk bi la ñu gën a war a bañ fa nekk te ñu ak sëñ dañ ko laajee ne ba ne ma dafay ñëw jàpp naan su mu murid nekk rek ko baax kon su murid nekk bu ñu mënee tawatee di ko kenn ñu baale ci ay ak saagaante ak mu mu mbaay ak tëgg ak jom ak ak ak ak ak ak ak ak na ko xalaat ci ak faranga ak diine ak ndox su ko defee mën ko def kàddu bu ñu ko defee kon sëñ bi dana am li mu bëgg ci ñun dana ko amit man ko bëgg wa in tanfarikum fi diine fa alaykum nas yàlla bu la bu la wooyee ne la kaay liggéeyal diine ne nga lakk kaay fas yéene liggéeyal diine lislaam kon def na nañu fóotaat xol yi nañu dëmee xol yi ñi nga xam ne liggéey bu rëy bi sëñ bi liggéey ba am li am wër ñu ko xajama wër ñu ko xajama mu ne fexe ba ku ñu xool la xoolan sëriñ ku ñu dégg xoolan sëriñ waaye da wax loo xam ne day tax kenn ko xamee di jëf loo xam day tax kenn ko xamee loolu soo ko defee yaa ngi koy kon Tuubaa bi dëkk bu sell la dëkk bu laab la dëkk bu jaamu yàlla képp la dëgg ci liggéeyal Muhammad alayhi salaatu wa salaam képp la kon leneen li ñu ko def lu dul loola na na ngay toon ci nga xam ne moo ko ci ab dëkkam te nag nañu ko rus rus nañu ko nañu ko rus ndax tam ñu topp yooyu xew yooyu ma doon wax mu xew wax dëgg yàlla ba tax kon yëkkati kàddoom ku ku ku ku sant lu baax ku ne rek nekk na ci sa xol kon du dëkkub toog du dëkkub toow du dëkkub tëgg du dëkkub tëj di dëkk bu ndaw di dëkk gor waaye dëkk jaamu yàlla dong la dëkk defaru kepp la ndax la saxaaba ya gëne ñu leen jiitu ñu ne man ñu gëne ko ñi nga xam ñu leen jiitu ndax te ñu moo leen defal هو الذي بعث في الأميين رسولهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كان بين بحر بني بحر ممكن بين بحر بني بحر كل بحر بني بحر ñoo fekk koo ci yow euh, jënd ko defaru ko màgg ko def lenn lu yàq waruñoo xam lan loo xam ne da yàq mbokk yi am ne ko waxoon bi may tàmbali mbiru bopp ñu ko mën ko sëddee ñu ne sëddee diine ne sëddee sëriñ bi nga moo ko yokk ñu ñu tebbe ci dox ñu ñu tebbe ci ñu ko la ñu ko rafa ñu ko rafa tawé am ngeen ñu yalla am ngeen ñu yéne ci am ngeen ñu ko wax ñu ko rafa ci bu ko naawé nak tan ci naaw rek waaye ñu mo yi nga xamné kon ñu ko tebbe ci ko euh adu bi ñu ni ma ko waxee woon rek bëgg ñu ko ngir ay baax bëgg ñu ko ngir nekk ci li nga xam ne moo nekk dañ ñu koy liggéey rek def naa ko sànq inna jaxalna ma ma ala al ardi zinatan laha li nabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla dañuy xool ba xam kan moo ci jaar ci yoon yi mu bëgg ak kan moo jaar ci yeneen yoon man fexe ba def ci ñi nga xam ne dañoo jaar ci yoon ci yàlla nga xam ne moom la yàlla bañ eh, mbokk bu loolu jàllee ñu ne xam tam ne seen kilifa bu mag bii ci yàlla ko nekk ñoo ko jiit la ñu bëggoon dafa moom la ko dara ci seen maam bi ñoo moom la ñu bëggoon doon moom la bëgg I'm not believing with anybody at that moment. كنا مين واحد مين واحد تنسيب اتجاه ديار تسويق بعض عندك ترى ضم واحد على حمل فيه تعمل الجنة يعني بس من المال المال كيف تتكلم في بنا على الجنة الله كيف تتحمل ركو بلا يتحمل تبتدع عن هذا الحمل في المباركة ndax la muy wax dafa ñor moo tax mu waxe noonu kon nañu yem topp li ñu li ñu jënd te bàyyi la muy tere bu ñu ko defee danañu mucc tey danañu mucc ëllëg Dubai